دفرار تدرو تالبة مبرد تالبة منك لا لا عملوا انتصارنا يمكن من من وقت دار اللي تباي لو خلنا أموت باي لب من وقت دفكو بندي دفكو وقت دفيار أيدي زنجي في بريك كان كل من خصوصا لو خلنا أموت كنا نميت لولو يخلنا مقدم لم أنو موجنا أب لو كان أنو dafa war a am yërmande ci taalibe dafa war a xam ne ne moom comme stabilisateur rek su xasakee xase ba toog ba julli salaatu fatixi be ñaar jeex ci ay wasaay bi mu jeex boo xam ne Cheikh Tidiane moo joxe tariqa ci boppam te Cheikh Tidiane mu ne ne yaarifuni yaarifuni waxdi kon aadaab tariqa boobu ak aadaab muridiya ak aadaab الحضرة لولو ورنا مقدم بنو جسرك جسي مون دايت بلا موخ نخ دعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال قوتت يا ما تحال تجمو بوكي سيرك نسنجا حمنا لكي تعرف باي موغن ديجي تخور جوتن كو حمنا دفعي وقت نخ موغا وقت لو حمنا يوم تي سبب نكو تي حال أبو أستغفر الله من قولي إلى عملي كن bu ñu nekkee loolu ñu xam ne lu diis la ko bàyyi elu yërmande ci taaliba bi dimbale taaliba bi te du xool lu nekk ci loxoom taaliba du xool oto bi mu war du xool lu mu yore sol du xool ndax taaliba bi ah sëriñ bi taal nekk ci mutu bi dafa mel ni dafa mos la kon loolu dañ ko war a jiital ndax yeneen ay ay baadoro bàyyi leen foofu kooku indil am na ñoo xam ne léegi da ngay jëndee ay carte balaa nga balaa nga dugg ñun fan lañ jëm hmm. bàyyi buntam yëpp daf doon ubbeeku mos ne dem ci yoon bi ziyaara benn ci muqaddama mu jaar ci moom mu gis ne muqaddam bi mi ngi tëju dina aw wala dina pël bàyyi mu ne taaliba wax nañ ku ne Ibrahim Niass mi ngi fi taaliba yi seen muqaddam bi dafa rey ci ñoom rey boo xam ne munuñ eeg wax ku ne la sëriñam sëriñ àddina bi yëpp تقصرين المشرقي والمغربي من يفي ما قلت يوم من يكو يقلنا باي من يفي بابا يجيس يلولو لازكو منكو آه، مسلمين مجيسنا منكو قاعدينو منكو وقال آه، ديو نجارنا في ما يقصو مكو وقونا نتكي بيانا يكتكو سوكي كتير war na wàcc boppam pour nit ñu jot ci moom moo sooy ne yàlla gëtee ngeen naaw fooy dem picc yi ngi nii naaw ci suuf ci asamaan loolu du du du kéemtaan soo waxee ne yaa ngi dem ci géej bi di dugg jigéen yi jën yi ngi foofu foofu la teg boo waxee ne da ngay nekk fii tey suba mu ngi nekk ci beneen côté boo xam ne ci Saudi rekk la loolu wax gars yi mu nekku cheytaan mu ne def loolu cheytaan fii lay nekk mu nekk feneen ابو يزيد منا كان موي الكامل عندك منا توكو مو كو خمنا سو سو اك نيتي دينك اك نيوم تي تي تي ظاهرا اك تي باطنا دينك تفوق لك اك يا باطنا ولم يكن ظاهر مع الخلق وباطنه مع الحق هناك وقام لدينا ظاهرا اكنني دلين دمبلا دلين ياتي الله دلين اوتت الله ما باطل مني ابي كوكو كوكو ويكومات ما لنا يب دفا دفا يوم نيون في لي كونك جسنكو تجنكو بد كم لو لي بريزدان انصار الدين وقت لا وقت نيوك بوكو انصار الدين bokk ci liggéeyal baay bokk nekk ay taaliba ñu buuxante ci loolu ñu xam ne ne loolu mooy suñu ci àddina mooy suñu njëriñ ci àllaaxira comme ne ñu ngi toog ak ay doomi baay di gis loolu du yomb wala ñun naa baax loolu yombul ci ñun te lii fekkee wax ñu ma avant ñaan ne ma ko du ma mos a yëkkati micro di wax lan lay wax. إلى حضرة ما وقت التيمم نقصو تيمم بياكنا تا من خمنا ندري ما دون دفرككم كنتو ديرا بلاصة جوا بوما كريك تي باند توش سنة سخرة عيدنا سنة سخرة ودي دو ما سخرة يبا ندك الحمد لله سنجي بورو خم خمي يمين تيمم مي ñun bu ñu waxee foofu ne ay surafaane ay awliya ay nangam ak lu ñu yor ak lu ñu saf ak lépp mooy nekk ay xuddaan baay ay jaamu baay te mu nangul ñu loolu loolu mooy suñu culture te loolu mooy lu ñu bugg fii lu ñu bugg ëllëg المختار بالسلام أنا العبد عبد الشيخ لا من قبيلة نشأت وصومي حبه وصلاتي sama oo sama julli lépp bàyyi te man jaamu بحب الشيخ إبراهيم هيم ففي الأحشاء منه هوى مليم وكونوا تحت طاعته وأموا صراط الختم أحمد واستقيموا للشيخ عبد العزيز وقبنا كسبان. لا ندعو وقت والشيخ لا أرجوه دهرا ومعذرة لأني لن أسمع سواه ولم أرى ولم أتصور في الوجود له سوى وما خفت عقلي السليم تصور لدول الباي من قالوا مكو مكو إيماجي فوقو مكو جسو مكو أتو مكو باي مو نقول دك سما بابا ku jëlee mu tuuti bàyyi mu ne ko jàpp ne man sa jaam laa mu ne mu ne ko تيسا min ndax dañ doon jaamu suñ bakkan ak suñ kii dum doo dim doomu diw doomu diw doomu ba bàyyi ñëw ñun dañ doon xam yeneen bi salaa sallam ne ku gàddaay fii dem fii def ger bi def nangam kala ak Muhammad salaa sallam mais balaa bàyyi bàyyi moo ñu xamal lan mooy xaqiqa muhammadiyya wa ma nisbatuha min alxaqi شيخ احمد التجاني ولد بعين الماضي دمنا في دمنا في ترنا القران في ست كان يريد خمس شيخ تجاني لأن موي شيخ من التجاري تيرو تبي صلى الله عليه وسلم بلا باي من خمركم وصل تواجه كن باي مومتي بطن لسلاقة يقال فيه بمغنم والذي لا يقال ليس يقال شيخ عند الحافظ مو دي طريقة تجارية ستن دون يونتي شيخ عبد الله بن الحاج مو وقت موي يمجو كو اوت مقام الفيضة دون يونتي باي سيدي مورتبال ست مليون انتباه لي لوطاخ اك لو نوت سو فكي افير بي نيو نيو كومون والله دوري مشتي دارا موسى نيو في ما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله اعلم حيث يجعل الرسالات يا رب خم فضل دف موتو تهوم دمي بنكو كو ديكو نكو بنكو نكو كو ديكو نكو نكو mais gis nañ ne ñu gaa moo mus a taxe moo mus a nekk rek rab karaw moo nekk ci kaw bopp bi ñuul kaaba bu ñu dawaat ñuul bët bu gis ci ñuul balaa tali bi dañ doon dem ci dem ci suuf di reer weex mu ñuul la ñun ñuul moo ñu saf moo ñu lépp moo ñu ñuul mais mënumaa dellu ci tam bi mu muqaddam ndax ñun xamuñu ay mu muqaddam ñun taaliba leen xam mbir mi muqaddam bu ñu waxee waxtaanal ci muqaddam من دون دون أمر تاني أمر مقدم دك بما دون دوتي دك سيدي محمد المشري فوق ولا جامع القرآن دك نتالي برك ميخان ولا كبكم تو توخم كل تيكا ولا تسيس ننا مانجيكو مانجيكو خيب خيب وتشيلو ما يتوبة ما خم تسمى خلنا مانجيكو كوا ولا رجلين سنتور شو تباي نجنكم وا إذكيس لأنك تسوبة تزين باي guddi di wax ci bay mu ne ñun tamit waree suba di liggéeyal baay guddi di waxtaan ci baay kon ne taaliba am na ku ñëw xaritoo xaaju Misri yàgg na ak mu ne ko léegi danaa la ganeel si ci maxtamu mu ne ko ñëwal temps nangam mu jox ko temps mu ñëw ba foofu gaaraay otam mu ne ko ana Cheikh mu ne ko ah Cheikh mi ngi France mu ah, mu jox ma rendez mu ne ko ñëw fii kër gi la am mu ñëw mu dem France قالنا ولو ده بنقيس انت حاجه وش منك من يونا منك من خارنا منك من يونا وقرينا دم فرانس من لن منك يوم لورا من لين انا الشيخ منك كان يقول مسدود الشيخ سمارا كلام دكتور لا من فرانس ولا فرانس ما الحاج لك أمد شيخ الحاج أمد مقدم كذا أمد أي تيتر بوك عمل لي يكوك موكل في ممر كم كم رزانت في نوبة من نانجم ديو ديو ديو ديو دفع مر كده ما واني سنة درجة maa nee na lu ñun xamul lu tax jaa ci ay tur ay ay gërëm mais maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax lu sërin bi mujj wax ci Baye Alaaji moo ko mun moo wax yow ci olof yëpp wax maa ngi la wax waxal yaa ko mun yaa ko lii du nekkul ci lii dara eh, jërëjëf ñëpp maa ngi jéggalu di leen baalu xaq eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah